asalaamaaleykum mbokk yi ñu ngi leen di jaar bu baax di leen ñaanal jàmm te di ko sàkku si yéen tamit euh, di dellu si tey rek ci vidéo yi ñuy faral di def ak yéen di leen ñaan rek ngeen di abonné ci chaîne bi di woy di ñu soutenir puisque li ñuy def aussi euh, pour ñeneen ñi mën cee jëriñu di leen ñaan ngeen di ngeen di aimer vidéo yi puisque loolu mooy tax ba. YouTube xam ne ñun liggéey bi ñuy def aussi amal na njariñ nit ñi donc euh, ñu ngi leen ñu ngi rafetlu bu baax ànd bi ñu ànd ak yéen euh, tey dañu xëy tey mooy la trente yaakaar naa su ma juumul trente euh, trente avril deux mille vingt et donc suba ñu ngi doon préparé comme ñi nga xam ne dañu nekk Wozur ci société bi nga xam ne moo tudd Wozur. Euh, ñi fa nekkoon dañ doon préparer suba bu ñu xëyee lañu waroon na lancer retrait yi mais yàlla dogal aussi mu am ay changement yoo xam ne dafa ñëw ci plateforme boobu ñu gis ne dana rafet ñu def ci ay vidéo pour expliquer nit ñi bon ñun nag duñ fi nekk di wax ne di jéem a jox société bi ne li mu def war na ko def walla waru ko def non duñ fi nekk di wax loolu puisque y a pas de sociétés yoo xam ne ñu ngi ci àdduna bi di dox yoo xam ne sax ñoom ñoo gën a dox société bi te terewul li société bi def ñoom société yooyu ñoom defuñu ko donc ñun duñ fi nekk naan société bi moom li mu def na ko def bitcoin bi moom moo yéeg moom moo wàcc waaw donc man ñun duñu dugg ci loolu puisque li am ba am mooy bitcoin moom bi mu nekkee bitcoin ba tey amul benn jour boo xam ne dina toog lu tolloog une minute wala cinq minutes yoo xam ne dina taxaw benn place day yéeg day wàcc donc pour ñun lool du excuse société bu àndee ak ay nit di liggéey ak ñoom war na am respect boo xam ne daf ko war a doxal ci digganteem ak nit ñi Wazir am na lu mu def am na ay changement yu mu def du ñu wax ne changement yooyu bon tane na waaye lu mën a am mooy euh, en tout cas li ñu waxante woon ak nit ñi am na ci loo xam ne commencé nañ ko teggi wax nañ ne nag euh, à cause de bitcoin bi li muy yéeg ko wàcc blockchain bi frais yi dafa cher loolu moo waral ba fi mu nekk nii ñu changé yàlla moom moo xam de toute façon ñun information yi niñ ko jotee noonu lañ koy jàllale waxuñ ne Wazir moo nekk si yoon wala loolu moom moo waral lool non dañ leen di expliquer rek changement yi nga xam ne Wazir def na ko donc compte bi ba léegi moom mooy suñu contest bi nekkoon c'est dañ ci expliquer waale itam nit ñi nga xam ne euh, dugaguñ ci plateforme yi pour ñu mën a comprendre compte bi biñ ko créer ba léegi su fekkee mat na ñetti weer ci la yem trois cent dollars rek lañ fi dugaloon pour conteste la woon mais gis ngeen ne li nga xam ne moom lañ fi retiré ci xaalis mat na mille six dollars tey compte bi fi ne fi ñu toll nii amul benn xaalis bu fi nekk mille six dollars yi tamit euh, li nga xamante ne moom mooy direct yi maanaam léeg-léeg ñu wax ko nit ne ko kaay nga dugg am na société bu génn kooku ñëw dugg wasir def ñu ciy jox dix pour cent mu am système binaire loo xamante ne dafa am ñaari pied côté bii moo ëpp côté bële su ko defee buñ ci dugalee nit buñ ci amee dix pour cent fii dañ ciy amaat fii dix pour cent bu fekkee direct la bu nekkee nekkul direct ci côté bii rek lañ ci amee loolu moo waral ngeen gis ne fii nga xamante ne moom mooy binaire bi ñu am ñu jot ci lu tolloog cinq cent cinq dollars investissement total bi moo nekk trois cent dollars mais gis ngeen ne deux cent quatre-vingt-dix-sept dollars yi moom la ñuy récupéré gun lii bu fekkoon tey encore ñu baal ma bu fekkoon tey Petronpay la contrat bi jeex na am na yeneen société yoo xam ne bu nekkoon ñoom la contrat bi jeex na alors ko contrat bi mu ngi des puisque normalement fii il faut ñu dem ba jot fi neuf cent dollars même bu fekkee dix mille dollars moo fi ñëw ci binaire bi même bu nekkee cent mille dollars moo ñëw fii ci direct yi en tant que fii jotul neuf cent dollars contrat bi du jeex donc loolu moom mooy système Wozur loolu dañ ko doon wax pour encourager nit ñi euh, à ce que ñu jéem a dugg ci business yi puisque am na dara sincèrement dugal trois cent dollars au bout de trois mois nga récupérer mille et quelques dollars euh, am na dara. mais puisque am na mais ku ci dugg dugg ci ak xaalis boo xam ne waxuma nga leb kenn du leb du ci dugal ci lii wala jaay say bien pour dugg ci am na ñu ko def réussir mais ñun amuñu droit taxaw fii wax la ne damal jaay sa kër wala jaayal sa oto wala jaayal sa lii nga dugg fii non wala dajaleel sa xaalis bu nekk maa ngi ko dugal fii non puisque en chaque fois société bi mën na tëj te bu tëjee da ngay perdre sa xaalis puisque investissement boo gis am na risque yu ci nekk société bi nag mu ngi innové sincèrement bu fekkee lool rek bu fekkee dëgg rek la ñuy wax puisque ñoom euh, ñu ngi prévoir commencé jaay ay billets d'avion de telle sorte que yow ñun suñ fi dajale woon lu mat mille deux mille trois mille dollars ñu bëgg a jënd billet d'avion ñoom am nañ seen monnaie bopp boo xam ne génnee nañ ko mu nekk mu tudd Wozir Coin di nga ci mën a jënd billet d'avion. moo ne boobu aussi boo ko amee di nga ci mën a jënd lu mel ni crédit loolu aussi mën nañ leen ko wanaale boo xoolee Afrique réew yi nga xam ne ñoo nekk ci àdduna bi nga xam ne bokk nañ ci euh, Émirats arabes unis Togo Tanzanie South Africa Sénégal Pakistan Nigéria Japon Iran Inde hmm? donc Canada Cameroun donc réew yëpp foofu lañu nekk ah. bon boo ñëwee Sénégal da ngay gis ne mën nga ci jënd crédit Skype mën nga si fay facture courant mën nga si jënd crédit free money donc Tigo moom amatul mën nga si jënd aussi Orange Money donc loolu lu am la boo xoolee bu ngeen xoolee fii maanaam huit virgule trente trois dollars bu fekkee ne moom nga joxe da ngay am cinq mille francs crédit CFA dañ la koy envoyé te espérons dinañ dem ba nga xam ne. gars yi dinañ jël seen plateforme de telle sorte que Orange Money mën a dugg Free Money mën a dugg de telle sorte que soo bëggee retirer euh, di nga mën a jaaree fii nga retirer sa xaalis directement mu ñëw sa compte Orange Money bon loolu nekkul loo xam ne tey moom moo nekkoon sujet bi mais dañ leen ko bëggoon fàttali pour que ngeen xam ne loolu am na bu njëkk euh, boo yoree compte Wazir transfert ak transfert transfert vers Purchase Wallet rek moom moo amoon léegi am na changement bu fi ne société bi nee nañu euh, à partir pour nga mën a def retrait il faut nga am trois cent dollars donc su fekkee ne da nga dugal cent dollars pour nga mën a retirer il faut nga am fii trois cent dollars loolu dana xaw a metti ci ñi nga xam ne dañu dugal cent dollars mais. tëjul bunt bi am na beneen système bu mu génnee boo xam ne euh, suñu maanaam suñu jaaree foofu dinañ mën a retirer xaalis bi te jarul ñuy xaar ba mu mat trois cent dollars maanaam purchase walet bi moom moo nekk nii bu njëkk moom rek lañ doon mën a envoyer te fii pour nga envoyer léegi il faut nga am cinquante dollars mais léegi changé nañ ko maanaam transfert diggante compte ak compte léegi loolu am na fii am sa compte bi amul xaalis puisque li fi nekkoon yëpp dama ko transféré ci beneen compte fii ngay ñëw nga dugal ID bi supposons li may wax mooy dama jël benn leader par exemple Baye Fall yow euh, da nga duggee ci Baye Fall mu dugal la Wazir wala nga duggee ci keneen moom moo dugal Wazir léegi nga bëgg a xaalis yor nga fi 10 dollars wala cinquante wala cent 100 dépend mais li nga bëgg a dem nga ci sa leader bi nga xam ne moom nga bëgg moom mu retirer la xaalis bi soo ngeen waxtaanee ba d'accord moom da lay jox euh, idéem la lay jox comme par exemple lii waaw loginam fii moom moom la lay jox soo ñëwee foofu moom ngay bind fii waaw user ID bi fii nga koy bind soo paree li nga xamante ne moom moo nekk fii supposons cent dollars moom moo fi nekk nga bëgg ko retirer fii nga koy def après nga def soumettre soo defee soumettre dafay dem ci compte kooku na am benn message bu ndaw buñ la indil nga cliquer ci message boobu su ko defee nga mën a xaalis mën a dem ci kooku su ko defee dollars yi day génn ci sa compte dem ci compte kooku kooku génnee CFA moom jox la idée bi nag lu tax ñu def lii mooy comme nee nañu ay cent dollars ak deux cent frais bi dafay bëri suñ ko defee trois cent yow boo amee cent nga envoyé ko sa leader keneen am 100 envoyé ko keneen am 100 envoyé ko su boobaa dina ma 300 moom si boppam dina mën a retirer xaalis bi génnee ko ci compagnie bi su boobaa aussi du métti si compagnie bi waaw donc ñoom loolu la ñu indil fii ñu toll nii mais ak lu mën a xew euh, mooy lu am la nit yi mën nañ ci profito puisque ñun testé nañ ko def nañ ko xam nañ ne aussi mën na nekk waaw Euh, képp koo xam ne aussi bëgg nga dugal sa xaalis si Wozur encore une fois wala nga bëgg a ak foo mën a nekk ci Sénégal foo mën a nekk si àdduna bi sax laay wax moo xam yaa ngi Sénégal moo xam yaa ngi bitim réew il fii que nga contacter ñu ci numéro bi ñuy bàyyi ci suufu vidéo yi boo xoolee ci suufu vidéo yi dinañ fa bàyyi benn numéro numéro boo xamante ne numéro boo xamante ne moom mooy doon suñu contact numéro yooyu boo boo ci cliquer moom mooy doon suñu whatsapp waaw fii lañ koy bàyyi ci suuf dinañu fi bàyyi suñu numéro léegi képp koo xam ne bëgg nga am ci leeral ci affaire yi nu muy demee foo mën a nekk ci àdduna bi soo ñu contacter ñun dinañ la mën a jàppale à ce que yow nga mën a def say retrait wala bu fekkee da nga bëgg investir aussi mën nañ see jàpp ba nga def say investissement si biir Wozur donc loolu la woon tey vidéo bi ñu ngi leen numéro bi moo nekk nii numéro whatsapp bi moo nekk nii képp koo xam ne bëgg nga ñu contacter foo mën a nekk ci Sénégal euh, am na somme yoo xam ne su fekkee moom nga bëgg investir mën nañu def déplacement bi fekk la fa bu fekkee ne aussi yenn somme yi la moom li ngay def moom mooy da nga ñu koy envoyé par Orange Money wala par whatsapp ñu activer la compte bi dee leen diversifier ngeen di bàyyee. bañ a bàyyi xaalis bu bëri si biir plateforme yi ngeen di gaaw a retirer dajale seen xaalis bénéfice bi ngeen koy yaatal su ko defee da ngay bokk ay plateforme yu bëri soo defee loolu yàlla mën na la dimbali ci investissement en ligne ba nga dem kon tey mbokk yi loolu moo nekkoon vidéo bi ñu leen di ñaanal jàmm di ko sàkku si yéen ba beneen yoon incha allah jàngeen jëf